waaw asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokk internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di leen na ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube TV comme ni koy faral defee chaque fois waa gars euh, tey dama ñëw pour alerte internet yi mooy ñi nga xam ni ñoom la ñuy jox de bonnes informations wala ñi nga xam ñoom la ñuy jox de mauvaises informations parce que des fois nit dina wax. nga tiim ko nga déglu ko nga foog ni li muy wax dëgg la comme ni mu ko waxee chaque fois sa jamono jom tollool ma maanaam nit ki dina ñëw am lu mu la wax sur le moment boo deful attention da ngay daanu si piège yi nga xam ni moom la la nit kooku noonu wax parce que jamono ñu toll nii lépp luy dugg Sénégal émotion lay duggee mooy maanaam la majeure partie du ñu toog analyser bien li nga xam ni moom moo di fay dafa am benn ndaw soo xam ni dafa dugaloon benn vidéo boo xam ni dañ ma si identifié woon ma jël vidéo ma partagé bokk naa si ñuy partage vidéo parce que peut-être chaque fois je partage tout ma def ko sama stories pour nit ñi am luñ si njàngat man su ma partagé c'est pas part force damay dëggal mais damay partagé parce que si Instagram ku ma tàggee damay partagé li ngay joxe xanaa mu nekk benn affaire boo xam ni day inciter violence wala mu nekk loo xam ni day yàqal nit. wala mu nekk loo xam ni day siiwal nit loolu la majeure part du ko du ko dugal sama Instagram du ma ko dugal aussi tamit li nga xam moom mooy sama chaîne YouTube dafa toog déglu lu baax pare li nga xam ni daggal naa leen ko ngeen xool bu baax ndaw si lu muy wax ak sécurité bi nga xam moom la si am si information boobu noonu ak vidéo yi nga xam ne nee na moom yor na ko mais après bu mu ñëwee di baalu dafa ne non déglu leen ba pare fii. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu suma bépp mbokku sénégalais góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne dëgg rek moo tax ngay dundu képp koo xam ne dara foqul sa bët maa ngi lay maa ngi maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant li ma la ñuy ñëw nag di wax c'est trop c'est important et c'est très urgent mais ñaan képp ku jot vidéo bi nu ko transmettre ba 17 million des sénégalais jot ci ndax li ma Macky Sall def démb ci guddi. ay ñoñam li ñu def démb ci guddi ci te moom mu sant leen ko billaahi wallaahi wa wa Sall lii bu génnee lu lii bu génnee tas àdduna tas àdduna maa lañuy waatal billaahi wallaahi wa di waat ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass mi ma yaakaar àdduna ak illaaxira li ma la ñuy wax lu dëggagul amul benn sikki sàkka démb ci guddi dem nañ jëli Sonko te avant koy jëli Macky Macky loo def yàlla weer na waay waay Macky loo def yàlla weer la Macky bàyyi lu bon Macky bàyyi lu bon loo def yàlla weer na démb ci guddi dem na jëli dem na dem na ñu euh, drogué Sonko dégg nga li ma la wax piqûre ñiy wax la li may wax def ma cee leer naññ comme midi. di la ñu waatal samay bakkanu doom bu dee lii may wax du dëgg bu ma paree vidéo bi yàllaa suuli samay doom léegi léegi léegi léegi Sonko jaralu ma ko Macky Sall jaralu ma ko ay ñoñam jaralu ma ko adduna jaralu ma ko alalu adduna jaralu ma ko lenn jaralu ma ko man dama suur démb tey door a ñëw les paroles et les gestes ne sont pas pareils Macky Sall yaa bon Macky Sall yaa bon say ñoñ ñoo bon dégg nga at ndaw soosu xaw ma comment elle s'appelle encore Adji Sarr ñu def ñaari vidéo boo xam ne Sonko il est tout li mu soloon bi mu nekkee bi mu jógee ci euh, comment dirais-je ba ca police ba moom la solaat ci benn vidéo bi avoué lépp avoué lépp dégg nga deuxième chose bi beneen beneen film bi moom la ak Adji Sarr non sama wëccu wëccu laay bëgg a def li ma njëkk a metti si première vidéo bi mooy sûreté bi nga am wax yi ngay génnee comme si li ngay wax dëgg la ci mag mooy maanaam da nga wax at gëm-gëm moo tax benn jour defoon naa benn vidéo boo xam maa ngi ne li may wax am Mame Ngor Diazaga maa ngi ne nit ki mën nga wax at sa conviction foog ni li ngay wax dëgg la fekk li ngay wax dara du ci dëgg yow rek yaa mën a gëm ni li ngay wax dëgg la am na yenn yoo xam ni boo koy génnee di wax na nga yor preuve Sénégal bu bëri dañuy toog di wax naan preuve yaa ngi nii yor naa les photos fii xaw ma lan ak lan ak lan mais kenn du ci génnee li nga xam ni moom moo di photo yi wala vidéo yi nga xam ni ñoom moom la ñuy wax ndaw si en est la preuve c'est que il faut que du ñëpp war a mën a jël micro wax dafa am ñi ko yàlla jagleel du par exemple di bu waxee ñi déglu ko. wala diw wax ni déglu ko wala diw génne ay information yu clair nit ñi di ko déglu mooy ku nekk war nga mën a jug toog di wax pour nit ñi déglu la yàlla daf ko am ñu mu ko jagleel dafa am ñu mu ko jox moo tax des fois man su ma gisee beaucoup de personnes di def ay live di wax chaque personne loolu day dem ba benn instant kenn du xam kan ngay gëmmati kenn du xam ñan ngay topp parce que un jour info information dina génn comme genre yi boo xam dina yóbbaale la majeure partie des Sénégalais te loolu danger public la tey jii ndaw si nii ak Adji Sarr amul lu leen wutale de même personne la li ma si gën a metti mooy Maulana Cheikh Ibrahim Niass bi nga jël waatee ko ne yor nga ay vidéo foofu noonu vidéo yi dana génn lii lañ def Ousmane songo nga ñëwaat waataat cib yàlla nga ñëw nga ne bu fekkee li ngay wax du dëgg boo génnee yàlla nga suuli say doom tey jii nii boo jàkkaarloog say doom lan nga leen di wax ndax bëgg buzz wala bëgg ne yow yaa joxe information boo xam ni leer na la ni yàlla leerul te ngay continuer di pointer ni information yu leer nga yow yow te vidéo yaa ngi si yow et internet yi xool leen bu baax ñi ngeen di déglu xool leen bu baax ñi ngeen di déglu sénégalais boo bëri ay policier ku nekk dina ñëw ni lii laa gis Macky sàll fii Marème fay sàll fii Ousmane Sonko lii la def ku nekk ñëw fena fena fena fena fena ba doo xam ñan ngay gëm tey jii nii politique Sénégal bu salte ñi si génn après di wax moom mooy tax politique Sénégal salte te mënoon nekk benn affaire boo xam day liis ngalawaay bàyyi leen ñi war a wax wax bàyyi leen ñi nar a joxe information joxe des informations di wane ay preuves yu leer ba nga xam da leen lii ce sont des preuves tangibles kenn mënu ko génnee man du dara moo tax may déglu xalaat TV de su ma koy déglu parce que moom day génne ay preuves wane boo leen bëggee dégg-dëgg bu dul moom. tant que génnewul vidéo ma gis ay preuve duma ci wax moo tax des fois les personnes ne ma bu kii génnee ngay wax no moom laay xaar mu génnee ay preuve ma ñëw joxe sama opinion duma toog mukk naan diw def na nii diw def na lii même bu ma yoroon preuve yi sax il faut mu leer pour ma mën a génnee léegi ñëw nga comme dàq man lii rek moo may métti jàkkaarloog sénégalais yi naan da ngay jéggalu waa ji moom nga fay mu jox la fausse information te waajooju noonu bu la delloowul xaalis boobu noonu yow xaalis boobu bu la ko delloowul waroo ko jël waajooju bu la delloowee xaalis bi yow waroo ko jël te du du ñun nga war a baalu ak baaleen di baalu àq ñun du ñun parce que ñun sasuñu la nga fen ñu te man nga baaloo àq sa doom yi nga bëgg a suul tey boo leen jàkkaarloo lan nga leen di wax ndax bëgg information bëgg joxe ngir yàlla du ñëpp war a tiim micro di wax daf am ñu ko yàlla jagleel. ñenaa leen sénégalais yi buñ dégloo fen dinañ xam ne carrément ndax lii fenn wala dul fen yaa ne woon nag Macky Sall yàlla dina ko àtteeg nit ñi tey yàlla yow la àtteeg nit ñi parce que yaa fi naroon indi beneen tooxi doon na yow. yaa fi naroon indi beneen tooxi doona bu yeboo nag bis ni ki tey nga bàyyi di jël caméra di jàkkaarloo caméra di wax ak sénégalais yi gars yi internet yi xool leen bu baax ñi ngeen di déglu parce que am na ñoo xam ni ñoo gën a gaaw taal réew mi te ndaw si mook Adji Sarr dara wutewul leen su ma juumul sax ñoo waxu vidéo bi loolu la woon gars yi wasalaam. Wes let's go nañ ko tëgg after coole yaa. Haya oh, si waaye matadi kasaramara awaga si waaye matadi kasaramara haya oh, si waaye.